ñu tuddee ko soxna Mariama loolu ñi ko def ak yaatal képp lañ ci jublu ak bëgg lu baax muy daay def xurtu ayn wala boog daay fasol sira di sëti Cheikh Soin bëgg lu baax waaye soo neexoon ñu yemale ko seen bopp kon bëgg yaatal ak bëgg lu baax képp ak bëgg dund ak mbokk loolu moo tax ñu def lu mel nii ñi nga xam ne tam ñoom lañu tuddee seen waajur bés bi ñu maanaam ko yemale ci seen bopp waxal ko seen bopp te defuñu ko ñoom itam ay ak yaatal képp la ci jublu te mooy man nii jox kàddu gi may wax xëy na yéewu ko ngir gàtt aw lef ci mbooloo mi ay ak itam fekk ci ñoom ñu ma gën a mën a wax gën maa xam soxla si rekk sa rek waaye seen ak mbaax ak bëgg ak yaatal loolu moo tax def bakkan nekk waaye nag fala zarabata su fekkee dañ ne dañuy waxtaan ci Kunta ñu jox ko moo xam turu alaaji fàllu dëkk aave yaayam tudd Kunta yaakaar naa ne kon amul zaraba ci moom itam wax ci soxna Kunta kon daal dañu xam ne lii nga xam ne moom la mbokk yi def di wax ko session yi jii te njëkke wuñ ko ci soxna sii nañ xam ne waa kër soxna si yëg nañ ko yëg nañ ko lool te rëy na lool fi ñoom ndax li gën a jafe ci àdduna mooy wala boog li gën a jafe baax ci tabe te gën a jafe mooy tabe ci daraja lii ñu def ñoom tabe ci daraja képp moo tax waaye lépp ma leen koo yemale seen biir te buñ leen wooyee du tee ñu ñëw daraja nag dafa nekk ci doom ci boppam ci borom moo tax tabe du jafe lool waaye kon nañ daan xam ne ma perception yi lii ñu def tabe ci daraja la ñoom gis nañ ko nangu nañ ko réer ci ñoom ñu xam ne day sant mën na wér sant waaye nañ xam ne daal rek foo ko takk Sénégal tamit weesu na ko am na tàmbalikaay waaye amul ak yemukaay te ñoom gis nañ ne lii nga xam ne moom la mbokk yi def yemaluñ ko rek ci njabootu Seexul Xadiim bi waaye gis nañ yaatal luñ def ba seetu seen yi sax kenn ku ci nekk ñu leen tudde ñu tudde bis ci lii nga xam ne moo leen def rawatina ci weeru màggal loolu nag dafay dundal lu bare bare waxuma dundal mbokk bi sax waaye dafay dundal yoon wi ndax koo tuddee dara rek dana yéegaat boppam waxuma la yéegaat boppam waaye mbooloo mi xamaat loo xam ne xamuñ ko woon loola kon ñi ngi dundal lislaam gi ndax yàlla moo santaane dundal ak bokk waaye ñi ngi dundal murit gi ci feeñal ñi nga xam ne nëbbu woon nañu kon ñoom lépp ñi ngi koy gis ñi ngi koy topp ñoo ngi ñaan suñu borom gën leen dimbale kàttan la leen dafa leen xéewal ba li ngeen bëgg ngeen dem ba am lu ko kawe ñoom waaye loolu nag lu baax moom juddoo ci fëtëb Cheikh Souhaïbou defe naa di njombe ku xam Cheikh Souhaïbou ak numéro kon lu mel ni bu juddoo ci ñoom ci këram ak sant yàlla képp lay doon ak dundal ak wéy loo xam ne am na kislaay jëmi am solo boobu nag nga xam ne moom la tuddee gi amee solo moo tax ñoom itam biñ ko tuddee tuddee soxla si kenn gisul mbokk yi nga xam ne ñooy bokk soxla si te ay sëtam ak ñeneen ñi nga xam ne ñooy bokk bokk soxla si ñooñu kenn gisul ci seen teewaay ki nga xam ne moo mag ci seen soxla yi fi mu nekk nii soxla si fi nekk nii mooy soxna maam Fatima ak Nay ñu ngi nii toog yàlla ko yàlla yàggal ko sëñ Fallou Seck moom si moom Seck Mbacke ma nga nee toog li muy jotati jotati li muy xaw a am gàllankoor lépp teewul dafa wax ne lu mel nii mënu ko bàyyi gannaaw mënut a xew mu ngi ko wuute moo tax mi nga toog doonte toogaay bi mënu ko mi ne toog waaye mu defee loolu ba noppi ñu dégg ko sëñ boobu mu nekk moom jàmm yàlla am moo di ne bokk na ci nga xam ne Serigne Touba da leen di jegaloon boppam àggoon na ci ba dañee fuddam suuf si nga xam ne sëriñ mag bi daa la ko jëfandikoo di ko takk léeg ndax dagal na ci góor mu di ko def loole lu ci bari daan woo soxna Kunta mu di ko tekkil ngir defoo ko mu ko defoo waaye bi nga xamee ne moom da koy joxe sëñ Massaye moom jox ko sëñ Massaye dégg ko da ko boole noonu mbooloo bari ay góor yoo xam ne ci ron kilifteefu soxna si li nekk mu leen defoon leen bàyyi wax nañ ne ñooña motoon nañ fukki góor wala lu ko yées benn ñooñu ñëpp kon moom yàlla def na teel en chef waaye ne fan nga gudd jafe-jafe àdduna ak lu bare bare waaye teewul loolu suñ mbokk bi wax léegi suñu affaire yi ñaan lépp koo muñoon ànd ak góor yàlla yooyu nga xam ne moom la ko sëñ bi boole woon ba mu xëy génn nag xaw naa néew maamam jar sama jaar ci ndax ñu bari ñu nga xam at la ne noonu man ne waaye ñun ñu ko itam ci njaboot ci ne ñetti doom la ko yàlla dégg loolu lépp yaakaar naa du tasaar waaye boo ci boolee ne soxna si mi ngi gane adduna fii ñu wax ne fi la jumaa ji nekk loolu tam ay mbir la yoo xam ne sama borom moom la ko jagleel waaye bi mu ko joxee dong yooyu da koo joxaale suuf fee ñuy wax ne mooy tusalu aarifiin ci yoon bi nga xam ne boo jógee boo ñëwee Daaru Rahmaan njaboot sëñ Maxtaar Sylla gi ñu wax léegi foofa lañ nekk fii mu nekk nii mu yoon a am kon soxna si sama borom defoon na ko xewal waaye yemul foofu ne diggante moom sëñ bi ndax wax nañ ne sëriñ Tuubaa bi mu jógee Mauritanie sëriñ bi mu idaalal mooy ñëpp idaalal mbokk yooyu da ca am koo xam ne da koo joxoon soxna si léegi kooka mooy maami sëñ Abdourahmane Fall Tilala wala Tilala ñooñu loolu li ngay firee mooy defoo ko ko sëriñ bi defoo loolu nag kon lenn la ci li nga xam ne mënees na koo wax ci soxna ji ay ak am soloom ak jaar-jaaram ndax li nga xam ne moom la mbokk yi wax ci wàllu mbokk gi def naa dégg sëkk waaye moom daal am na cër bu ko sans borom joxoon jaar na ko sewal xarit soo seen xarit bi nga xam ne lu bëgg ko lool defoo ko lool defal ko yu baree bari yoo xam ne am na yoo xam ne mënees su ko tudd ndax jotaay bi moo tax ak itam du wax mbooloo ah dafa mel ni soxna si suñ doon waxtaan ay mbiram ndax li sëñ xam sa wax léegi gàttal kàddu yi moo ne ñoo ma defal kàddu yi moom seen kàddu tuut naa ci jàng la ko niñ ko waxe woon ma néew waaye xanaa kon ma junj ci yéene àggal ko ñoom daal moo fedd lool seen ak cant ci mbokk yi nga xam ne ñoo tuddee soxna si lii rëy na fi ñoom lool yëg nañ ko lool tey bàyyi nañ ko xel lool ñoom itam ñi ngeen xamal nag nekkoon nañu yéen de waaye gën nañoo ànd ak yéen ci lépp lu ngeen sumb su ngeen leen wooyee ni ngeen seen gannaaw kon boobu ñoo ngi ñaan ci barke weer wi barke bés bi ak jotaay bi suñ borom doon ñu tew fee xëy liñ bëggoon wax mu ko ndax gàttul lef ci yoon wi ak itam guddi na ñaare bi tam mbokk yi fi njëkk aw li amoon solo ci soxna si dañ ko wax kon nañ ñu njàmbaas rek di fàttali ak sant di xam ne daal mbokk